génneeg léegi wax xalaatam ci lu jëm ci anam bi ñuy defee revue de ci Sénégal njiitu réew mi nag waxam ji daal di jur coow ba léegi ci société bi looloo tax ba journaliste bi moom lu mu gis mooy mbir mi lee ku ne mën na see jox xalaatam. ku ne bu la neexee nga wax la la neex ci presse parce que journaliste yi dañuy critiquer li nit ñuy def kon ñoom it fokk ñu nangu. nit ñi di wax ci ñoom ni ñuy liggéey kooku euh, man awma benn problème bu fekkente ni nit ki day wax Euh, bu fekkente ni président Macky Sall dafa ŋàññi ni ñuy defee revue de presse euh, li ngay seet rek mooy li mu wax ndax ñuy def revue de presse boobu ndax méngoo na ak li nga xam ne loolu la journaliste professionnel yi di defee revue de presse. gis-gis yi wuute lool ci bile mbir wante kii moom li mu gis mooy kii di njiitu réew mi lu mu wax dëgg bu wër péng la. parce que nous ne nous la face la face ñëpp xam nañu ni revue de presse yi léegi dañ koy théâtraliser et sa sa ça ça gâche beaucoup de choses dafay am lu bari lu mu yàq suñu liggéey. waaw li ko waral bari na euh, daw ci euh, scoop bëgg scoop bëgg buzz dina tax nit ki am benn déformation bu mu def. wala wala wala wala wala wala wala waxee noo xamante ne du noonu la war a waxee. gannaaw bu njiitu réew mi génnee wax ci lim jàpp ni théâtralisation la lu jëm ci wàllum revue de presse ci Sénégal journaliste bi di Babacar Fall moom génnoon amaloon benn commentaire loolee nag jur coow ba mu indil ko ay menaces looloo tax ba journaliste yi ñoom luñ gis mooy mbir mi ku nekk mun naa joxe xalaatam te. liberté commentaire moom liberté la Babacar Fall déglu naa ko. waxul dara loo xam ni dafa doy waar maanaam da li mu wax dafa commenté mais nit ku nekk am nga sañ-sañu ko ni président Macky Sall amee sañ-sañu commenté ni ñuy defee revue de presse noonu la keneen am sañ-sañu commenté li président Macky Sall wax. et pourtant yàgg na wax de man je me dis que yàgg na wax de il n'a eu jamais de problème par rapport à ça donc euh, ñi koy fustiger di ko ŋaññi aussi tamit war nañu euh, euh, un peu se mettre à sa place parce que je me dis que affaire yi ñaara fi am parti au pouvoir opposition ku nekk si ñun am na sa point de vue am nga sa analyse